yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi ginnaaw bu ñu nuyoo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp euh, jàngat bi ñu ci njëkk a def rek mooy sant yàlla bu baax sant Sëriñ Tuubaa di sant Moukhaddamatoul Khidma mi nga xam ne ñoom ñooy taxawee lii leen sant ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha nekk ndax moom lañ fi teewal tey waaye di leen sant ci turu képp kuy murit ndax li ñuy def fii euh, nun murit yëpp taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp dañoo waroon ñëw ànd kook ñoom di ko def di ko ñoom jaaduwul benn bis ñu di ko wute ndax fépp fu ñuy waxtaane xam-xam jullit yi di ci yokk xam-xam di fa génn ñépp a ko war a teewe te ku ne xam na xam-xam ni mu ñore woon ku tedd ki eh, ñoom ñu taxawee ko di ko def ci weeru tedd wii di ko def ci barabu tedd bii nga xam ne fii ku tedd ki tedd muy lu am solo loo xam ne nii dayo bi mu ne su ko misaal euh, kon lu ñuy def rek mooy <clears throat> di leen ñaanal ñoom Moukhaddamatoul Khidma di wax ne ñu ngi koy ànd ak ñoom bu suñu jëmmu teewul it suñu xel ak suñu xel ak suñu xol teew na ànd kook ñoom te yaakaar naa ne euh, mbooleem taalibe Serigne Touba mbooleem jullit yi ndax li yemul rek ci tuubaa yemul rek ci. taalibe Serigne Touba yi waaye dafa egg ba ci jullit yëpp ci àdduna bi ñoo koy teewlu ndax xam-xam rek lañ ciy wax euh, te itam lu am solo la ci image du Touba ndax euh, boo demoon bitim réew doo sori sax am na ñoo xam ne jàppewuñu sax ay jullit waxuma laak nag dañu xam ni ni diine demee ci Touba. kon bu ñu dee seetaan lu mel nii xëy na wolof bi rek moo leen ci jaaxal waaye bu ñu déggee ay bay dañ xam ne ñii wax borom xam-xam la moo tax damay wax ne sax euh, xëy na mënoon nañoo xalaat ci nu ñuy def ba di ci dugal tuuti nasaraan français ak anglais ak arabe ndax ñi ñi ñi li bari na lool te bëgg nañoo xam ñoo bari nañu ko xam. buñ gisee barab bi gis li fi nekk gis nit ñi ñu fi toog ñu xam ne fii la diine nekk te loolu képp ko fi ñëw rek loolu nga confirmé kon ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal ci taxawaay bi di leen suñu borom yokk leen wéral leen euh, gën leen ubbi ci xalaat yi ba lépp gën a mën a yaatu ba gën a mën a ci àdduna bi maanaam loolu rek la jëm salaamaaleykum